Euh, di nuyu suñu mbokk journaliste yi fi teew yëpp vraiment am mbégte teew fii gërëm ñi nga xam dañ ñu wis yëpp te dëkk biir Médina di gërëm aussi ñi nga xam ni ñoom laa seexal coalition 2035 coalition 2035 ñëpp xam nañ ni Mame Mbaye le ministre Mame mooy le président mais doon bëgg waa Médina yëpp jàpp ni élection locale du affaire président de la république du affaire parti dafa dépassé cadre parti affaire Médina la affaire gox la donc ñu jàpp ni waa Médina dëkk Médina di yeewoo Médina ñoo dajaloo bëgg changer Médina loolu dama ko bëgg mu leer si ñu bari affaire bi du affaire politique du affaire parti politique. du affaire ay coalition mais affaire waa gox bi la affaire nit ñi dëkk ci biir gox bi la ku ci nekk am nga droit ngay def politique ñàkk def politique xool ki nga xam ni yaakaar nga ni bu yoree maire bi dina lijjanti population yi nga dem ànd ak moom pour que Médina jëm kanam loolu dama bëggoon wax ko mu leer ci ñëpp bi xam ni moo ci topp ñëpp gis nañ Médina nu muy doxee wax naa ko ci fin wu discours bi du ma bëgg personnaliser débat du ñu tudd turu kenn mais gestion bi am Médina ñëpp xam nañ ko waa Médina yëpp ñu ngi koy contesté xëy na duma ma dugg ci biir parce que man dama defoon serment wu du ma dugg ci gestion municipale parce que yàlla ci mbaaxam def na lu toll ci juróom-ñaari ma nekk maire Médina fii nekk fi député maire donc xam naa luy maire yi xam naa maire yi nu muy doxe donc bu amee ay nit yu dajaloo bëgguma ànd ak ñoom pour jëli maire bi ma xam ne ci biir nekk ci biir maire bi dama koy rafetlu ànd ndox ñoom di ñaan yàlla may ñu ndam au soir du 23 janvier am keneen parce que cinq candidats moo fi am peut-être damay taxaw rek ci quelques candidats moo am beneen candidat boo xam ne mi ngi biir Médina mi ngi dimbali waa Médina mais dama ne Médina un maire un maire bu fekkee dafa bugg dimbali population day ñëw di yeewoo ci gox bi dëkk fi loolu mooy li nga xam ni mooy li normal dëgg la. loolu idéal la loi bi loi bi waxul loolu xëj na parce que boo demee ci loi bi un tiers conseil municipal mën nañ bañ a dëkk ci dëkk bi donc un tiers conseil municipal maire bi mën na ci war moom mais dama ne idéal bi mooy koo xam da nga ne Médina mooy sa xol da nga ne Médina moom nga bëgg doo xeet xeeb waa Médina ba dem dëkki feneen samedi ak dimanche ñëw di fi politique pour demander seen i voix beneen bi ci topp dafa am fonction yoo xam ni suñu bu la ko yàlla dénkee ñu koy ñaanal fonction yooyu gën a yokk amuloo temps wu mairie te naa ci yokk bu gën a gàtt bu gën a gàtt du ma tudd tur CATB moo fi nekk ñu jiital Cheikh Ahmed Tidiane Ba président bi tàmm tànn ko pour mu jiite Benno Bokk Yaakaar jiite seen candidature mais dama ne ku yor mouvement bu day noonu ku yor mouvement bu day noonu responsable des femmes ba sa rakk la responsable des jeunes ba sa sa jarbaat la trésorier ba sa jarbaat la je pense que bis boo yore maire bi sa njaboot nga koy jox dem toog CDC de temps en temps nga doon gis ñaari donc loolu dama bëgg jeunes yi dama bëgg jeunes bàyyi seen xel ñun nag politique fi ñu jëm ci campagne bi ci yar ak teggin lañ koy defee du ñu xas kenn mais dañuy wax pour nit ñi yeewu encore une fois dama ne booy politique ànd ak ay jeunes sa devoir bu njëkk mooy devoir d'éducation mais doo jël jeunes yi di leen dugal dans des canevas yoo xam ne wóor na li ngay wax gëmuloo ko lu au soir du 23 pour jël seen suffrage donc dama bëgg ku ci nekk bàyyi ci xelam ku ci nekk am nga droit nag voter ku la nekk ku la neex mais ñun dañuy ñaan euh, le 23 yàlla ubbi dënn yëpp def seen xol horizon 2035 pour que ëllëg ñu àndandoo liggéey maire yi